di nuyu ki nga xamante ne nag mooy chef de quartier Guédiawaye mooy patron Guédiawaye ah. mooy vedetu Guédiawaye mooy naanaanu Guédiawaye mooy xoromu Guédiawaye waay tàccu leen waay tàccu leen waay tàccu leen waay Lirou nuyu nañ la ziar nañ la kontaan nañ how are you you all right fine you good yeah from from from America yeah America New York <coughs> salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm uh-huh. uh, di nuyu borom kër gi. ndeysaan sunu papa. El Hadj Ndiaye di nuyu sama frère Abdou Ndiaye. ak sunu yaay ji Marème Ndiaye. ndeysaan waaw. di leen nuyu papa njaay yow njaay man Ndiaye. waaw kenn du ci dara borom kër gi Ndiaye. barke yow Ndiaye man Ndiaye kër bi lu lay ku fi liggéey sax Ndiaye. Sénégal Ndiaye mu jeex. Sénégal Ndiaye ak gaynde daal daa mën a ñàkk li li mën a ñàkk ba tey xam nga lu ma gën a nekk sa nuyoo non xam nga lu gën a nekk sa nuyoo nuyoo ko fi naan a non non non non man di laa bëgg ci nuyoo ñëwal bàyyi jàmm bàyyi jàmm du nuyu fa ma jóge waaw may ma tudd am xoolal déglu ma dafa naan xoolal bi ngay wax dama la déglu non ma dafa naan dama lay wax man wuy ma dafa ndànk dama lay expliqué bi ngay nuyoo dama la déglu yow nee nga li ma xamal man li ma la xamal moo raw loolu téeméeri yoon yow li ma la xamal yow kon soo fi taxaw naan li ma xamal xamaloo ma dara xamaloo ma tus nga ma xamal maa la xamal waaye yow xamaloo ma maa la xamal waaye yow ay moom moom moom la. yow laay waxal kan mooy mbër ah wuli wuli kan kuy kooku. wulli bi ma bàyyi may nuyoo doon ma bàyyi ma doon ma àggale ma sa ay caret di nuyu géej waay gëm a di nuyu sama doom day jéy seen di ko nuyu du nuyu grand champion Balla Gaye 2 laay laay li laa Baye Mohamed Sey waa hmm. géej képp ku yeewoo géej waay di nuyu kilifa yi nekk géej du mu nuyu sama monsieur le maire Aliou Sall Sall ngaar bu du gere comprendre du nuyu waa géej waay gépp du nuyu ñoom Fouta sama gaay di dem ba Amérique tamit di nuyu waa Amérique Mafal Baye Fall bu mag ba ma faal di nuyu sama doom ndey euh, moo géet